ñu ngi jaajëfal ñëpp tey nag ñu ngi fii ci pikin euh, fas yéene ànd ak sumbulu Soumboulou Bathily euh, Laliya euh, fas yéene xool ni muy joxe ndogu moom tamit tubaar fakàlla macha allah nee nañ ramadaan mu baraka la ñu wax ci koor gi lañ nekk suñu ndaanaan yi defuñ lu dul di joxe ndogu yi moom nag mu fas yéene koo joxe ci daara yi ak ci koñam ak soppeem yëpp ñëw teew fi duñ def lu dul junior nga topp ma ñu xool tey Soumboulou nan lay joxe ndogu yi fii si Pikine. Petit Mbaye góoru Soumboulou xale bi nga xamante ne moom it tubaar fakàlla macha allah mu ngi joxe li nga xamante ne loolu askan bi di laaj macha allah xale Paris xale Sénégal Alioune duñ def lu di la nuyu di la ziar di la jaajëfal. waaw alhamdulilah bisimilah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom Touba gàcce ngalaam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñi ngi leen di fay bu baax sunu gaal di leen déglu yi tamit parce que tey li nga wax dëgg la sumbulu sunu xarit la di nit ku baax. di nit koo xamante ni ku mu àndal ci aar rek yaa ko ameel waaye moom deselatu la dara ci fonk nawle. sa relation ak Soumboulou tey jii boo ñu doon wax sa diggante ak Soumboulou tey lan nga ñuy wax. waaw bu ma la doon wax ni la mbokku artiste du doy bu ma la nee ñoo dëkk ci banlieue rek du doy ndax mënoon nanoo bokk nekk ci aar bi bokk nekk ci banlieue bi mu demee neneen mais dafa fekk ni moom day nit ku fonk nawleem yàlla def mu am benn programme bu amoon grand théâtre li ma ci gën a marqué ci moom ñu dem ci ñoom saaneex woo ma pour ma war a jouer fay ma xaar bu weex tàll di ma jox paas xaar bari mais sumbulu daf may jël ci otoom di ma yóbbaale ba Pikine bu ma ko nee fii baax na danaa ma damay dem ba sa buntu kër di ma yóbbu di nit ku baax di nit koo xamante ni nin ko xamee woon boobu ba léegi noonu la mel parce que aar aar ku bon bokk ci muy nit ku fonkin nawleem nit ku yaatu lii mu def wane na ko tey tey murit xaadir tijaan laayeen ku ñëw di nga bég muy nit koo xamante ni nag muy ñaanal way juram tey ñu yëg ko ah ñu ñëw teew parce que tamit nit moom lenn rek lay jariñoo nit mooy mu am bis nga teew ci rawatina koo xamante ni nag képp ku ku ko defal teraanga da nga koo fay waaye lebalu la ko mooy sumbulu baay. dëgg neexool Alioune Petit Mbaye ñu ngi lay ñaanal jàmm di la jaajëfal bu baax. waa gis nga di jërëjëfal ñëpp di nuyu magam ju baax jooju sopp nabi laa ko tuddee muy buri bàcc li ñi ngi ñaan daal li ñuy ñaanal seen jur bi yàlla na ko yàlla jot jotale ko ci barke yonent bi. Dieu mu di Dieu c'est la force Bamba la force leer nañu comme la torche moo ñu bàyyi Serigne Fallou buñ ko tuddee ma aalu dafa bàyyi Sori Diallo ma xaaju. Ndiogou Bathily doomu yaay Soumboulou Bathily Ndiogou kenn doon ko présenté euh, ñàkk ki ñaan gën xale bi nga xamante ne daa bëgg rakam ba mu jeex macha allah Ndiogou maa ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. maa ngi delloo ziar bu baax a baax a baax vraiment kontaan naa. waaw tey ñu ñëw fii si Pikine fekk ngeen di joxe dara ndogu ngeen taamu ko ci daara ji ak jàkka ji tey lan moo waral idée boobu ak initiative bi fan la jógee. waaw ñun ci suñu papa lañ jëlee loolu vraiment tey yàlla def mu dëddu ndax li olof Ndiaye naan bu doom màggee dëbb dëbbinu ndayam yàlla dafa dogal moom sama papa dafa mënoon di joxe leeg ci moom lañ ko gisee danañ koy sante suñu borom te weer bi dafa nekk weeru promotion ñu ciy profité ndax moom noonu la ko daan defee. ñu topp ci ay tànkam rek profité ci tudd euh, euh, ñaanalaale mboolem waay dawlu yëpp tey suba wàccee nañ kaamil yi ñaanal nañ mboolem waay dawlu yàlla xare leen aljana yonente bu tedd bi teeru leen ñoom ñëpp ci seeni ci ay loxoom yu tedd yooyu xare leen aljana firdawsi ci dara jaam vraiment loolu moo tax nag ñu jël initiative bi ñëw bëgg bokk ak waa koñ bi fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañu xam lii li li waykat bi naan lu mu guddi guddi guddi pikin laay fanaan loolu moo ñu dal waaw moo tax lépp lu ñu am rek mu néew dañ koy ñëw bokk ak ñoom parce que ñun ñoom la ñu am moo tax nag loolu moo ñu gën a forcé ñu ñëw tey def euh, ndogu bi du ren nag la commencé commencé na bu yàgg mais lu tuuti tuuti lañ daan def mais tamit nit ñi li ñuy gën di yokku ak ñaan yi tamit li ñuy gën di lii yëf di gën a feeñ loolu rek moo taxoon nag ñu ne nañ ko def waaw Ndiogou duñ def lu dul di la gën a jaajafal rek di la ñaanal jàmm yooyu. kontaan bu baax a baax a baax ak déplacement bi ak dérangement bi yal na leen yàlla fay yiw ñu bokk lépp ci weeru koor. merci beaucoup. merci bi maa ngi lay ziar di la nuyu di la jaajëfal bu baax a baax. lay ziar bu ñëw fekk la ci joxe ndogu Soumboulou Bathily bi euh, ñu doon laaj sa relation ak Soumboulou lan la. waaw bala ma sori ci loolu mi question bu am solo. mu lay présenter rek ñu ngi ànd ak El Hadj Serigne Cheikh Gallo di doom ci xalif général de Layènes moom moo waral jotaay bii nii moom la Soumboulou invité pour mu ñëw te bis bu bis buy nii nga xam ne sumbulu moom moo ko taxawal. li olof yi di wax rek ne bant la mu saf rek ngay tàqamtiku ku juddoo ci diine ci diine rek nga war a def loolu moo waral Soumboulou am xalaatu def lii invité ci nga xam ne moom mooy ambassadeur de la jeunesse de El Hadj Serigne Cheikh Gallo mu ba yëmbal. ñëw fi ngir diine loolu moom mooy soloom ñëw bi. Mhm. léegi bi nga ñëwee ba gis tey ji ñu jël ndogu yi ne ci jàkka ji lañ ko yóbbu ak daayira yi ban yëg-yëg nga ci am ak tey ñu ngi ci fekk. waaw yëg-yëg ñu ci am rek mooy lu ñu sëriñ bi di fàttali toujours ndax dañoo nekk ci weer woo xam ne loo ci def yàlla da koy ful loo ci def ci ngëneel yàlla daf koy ful loolu nga xam ne nag sumbulu def na ko loolu nekk ay xéewal dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ñàkk fàttaliku ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ñàkk nga jël sa sa sa sa sa sa dërëm bokk ñoom ci ci ci weeru koor wu sell wi loolu diine la te ndimbal la kon loolu acte boobu nga xam ne def na ko rawatina mu def ko ci weer wi nga xam ne weer woo xam ne yàlla moom moo ko gërëm weer woo xam ne Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam gërëm na ko acte boobu nga xam ne def na ko ngir dimbali nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk suuf dem ci jàkk ji dem ci daara yi loolu du ñu def du rafetlu initiative boobu di rafetlu acte boobu nga xam ne taxawal na ko noonu lay demee alhamdulilah. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal lay jaajëfal bu baax di la ñaanal jàmm bu baax a baax. jëm. yow naa ma am bàyyi naa la noonu ma may ko. yàlla moor yàlla defal mbageel ci sunu xol. bàyyi farata ki sunna am ko bokk war na la. mbana kafe gi ah dafa mel ni moom moo féetee ci kafe gi jëwri ñu ngi lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. ñu ngi leen koy delloo baax a baax. di bëgg rek ci bis bi moom Soumboulou moom daa bokk ci ñun laa liyaa daa bokk ci ñun lépp lu mu laa il faut ñu ñëw takk ci rib journée bi suñu journée la ñaan gi ñaanu paa bi moom suñu ñaan la ñu ñëpp te xol bee rafet gisoo xale yi suba ba léegi lu ñu kafe xale yi naan ko kafe gi dara doyul dañoo kafe kafe kafe ba fi mu toll nii dañoo sonn mais kafe gi sa doyul xale yi dañoo bu xale yi comme yëpp dañoo maabu te baax rek am solo journée bi na dañuy ñaan yàlla mu gën a yaatu dañ ñaan yàlla ba télévision yëpp ñëw di ko teewee yéene boobu lañ ci waaw ñun merci ñu ngi lay jaajëfal. rafet na kontaan nañ trop. bu ko ratteeku waañ bi tikkee ngi nii maalaw sumbulu bàccili maalaw bëri bàccili maalaw euh, fami bàccili daal moo ngi nii taxaw gën ri sama maalaw bi maa ngi lay ziar di la jaajëfal ah, ah, pol Paul bu rafet maa ngi lay dolli ziar sa wàcc waay sagal dinaan la soyé la bienvenue fii la ci mbana yi nag nga aakimoo waañ bi tey lan nga ñuy wax waaw maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen bëggee saa su nekk di leen booleeg cant ak ngërëm di julli suñu si bu nu jullee nag si yonente bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur ndax euh, tubaarikàlla ñoonu ànd si àdduna ba nu mën a def yëpp ndax euh, mbana yi tey nga ma intéressé sama xol da ciy neex ndax lii ma tiim tey fierté laa ci àndal ndax nee na tubaarikàlla lépp lu waay di def rek te mu doon la pour xool tubaarikàlla macha allah dama ko defee xol dama koo jëlee dënn dama koo defee avec fierté ndax euh, ki ma ki tax tey ma ñëw fii ci mbanay tey muy jëmmi euh, njóogu ak jëmmi euh, buri ak jëmmi sumulo jaral nañ ma ko ndax tubaarikàlla seen baay ji ñaana ñaanal tey sama baay la waaw. def ko ci weeru ramadan bi nga xamante ne promotion la yàlla mooy fayal. tubaarikàlla ñu ñëw na def ko ci suuru ramadan te ku ne xam na dañ ne weeru weeru ramadan weeru yàlla la. lépp lu si waay di def rek ngëneel lay doon lépp lu si waay def rek mu doon sa ñaq sunu borom dala koy fay ci ay mbégte ci saayir waaye ci baatir tey euh, weer bi nga xamante moom lay ñaanalee papaam weer wu la weer woo xam ne ñëpp dañuy baal ak ndax bu ñu gisee weer nga tooñ nga ñàkk a tooñ moo ci yemale léegi nag euh, fii tey dara maa ngi ko defee bi mooy troisième fois ma ko fekkee muy defanteeg man nii cof man nag peel la may tubee si suuf moom sumbulu bàccil ak magam ak rakam ñëw na ma tikkalaw ba lépp loo xamante lu ma war a def sama ñaanu papa bi rek ndax sa papa la rek yaay borom defal lu la neex defal lu la safaay tubaarikàlla jox na ko ku xam àdduna ku mën a deflanteeg nit ñi waaye tamit ku mën joxe nit ñi berne te maa ngi te ñaanuma yàlla dara yàqu ndax dama ciy dugg ci bisimilahi rahmaani rahim te tubaarikàlla maa ngi ñaan la sant baax a baax ndax la xool xam ne yaay mbokkum yaay munaas ndax dara ñaawul ku dem ba kaw la fekk fa sa mu teral ko ba mu tedd barki dem moo njaay ngeen ma yóbbu xew teral ma ba ma tedd te dara yënguwul yow soo ma fekkee ci milieu yi beneen budul milieu bii sax su ñëpp taxee ma tikke bu man ma interroger waaw wàññiwul sa mbaax dara waaw maa ngi lay gërëm na di la gërëmal sa caméraman bi nga àndal te xam ne tubaari kàlla nag mënoon na la caméra la tike nag nga fel ko wala nga jël sama benn pat ba ndax am na fi mbaa nga jël sama yéen rek diri booleeg moom rek mbaa nga jël kudu ci waa bi sànni waaye daf maa jël téema ba ma sek waaw kon kon na nag ñaamalante leer laa lay wax gi ginjër dëkk bi bépp ba mu yaatu booy xool xoolal ki nga bëgg la di nga xam ne du la xoolal ki nga xamante ne tubaarkàlla foo sañ sañu ni moo la gën ma waaye gi ñu bàyyi Modou mii ah bu soobee yàlla ak yonent bi day nga riig sumbulu tubaarkàlla barke Serigne Touba yàlla dana la fa riig da nga bëgg sumbulu bëggal ma lool sa bopp lool barke Serigne Bamba te fier ci nag te li ma saf man te neex ma mooy boo bëgg nag di fier soo bëggee di rek ci sincère soo bëggee di bul bañ ñu jam la paaka ci bopp te da bëgg sumbul ba mu leer ku sumbul am nga bëgg ko saa yu ma àndeeg sumbul wala saa yu ma ñëwee ko sumbul say junni moo njëkk a tege samay loxo te tubaarkàlla koo jox junni am na junni waaye yàlla boo tàggoog teraanga tubaarkàlla macha allah sumbul nag doomi doon na koo xam ne nag macha allah doomi bete betal doomi faris la tubaarkàlla gañ siri sama yaay rek la doy na doy na tiitar doy li ma boole moom du ma ko tàyyi di wax léegi laa ko wax Baye Modou Binta Mbaye ak mère Gagne Sir ba ñu ànd boobu juddooguma bu kenn yaakaar ne nag jamono xew ma ànd ak sumbulu bu kenn yaakaar ne nag beuse xew ma ànd ak sumbulu tubarkàlla sumbulu goro ñu àndan boole kulëree ñu boole jàpp ñu boole tubarkàlla macha allah laaw la cat mu doore ci buri bàcc li taaw wàcc ci njóogu ñëw ci sumbulu mi cat laf cat tubarkàlla te li ñuy wax ci diggante géer ak géwél nag jigéti googu tubaarkàlla macha allah daw leen benn yoon yàlla na la yokk ci barke xaadim rasool Baye Modou dama ne loo mën ren bu déwénee yàlla mën ko su mënu bàcc li tey nga ñëw ci joxe ndogoom lii xam nga ne li tey macha allah tey fii wàcc na comme ni ma koy waxee rek wàcc na ba zéro tey lan ngay wax ci lii fii wàcc na ba jeex ngay wax xam nga zéro day ron danga la nga wàcc na ba jeex lu bàcc li tubaarkàlla lii mu def rek la mën ndax boo màggee ci yaay yuy joxe papa yi joxe tante yi joxe nijaay joxe ay mag di joxe boo juddoo ngay joxe kon lii mu joxe yàlla bu mu ko tàggu moom ba diini ci barke Xaadim Rasul yàlla ko yàlla fal cat nag yàlla ko yàlla fal cat waaw loolu rek laa la waxal de. yal na jàmm yàgg sax amiin yaa rabbi tamal yàlla yàlla fal cat jaar naa ci wàllum organisation baa ngi nii junior nee naa la bésu sumbulu bi tey du yomb xoolal ma sama xale yu góor yi sama waxambaane yi xoolal ma lii ñu def rek fas yéene jàppale ki nga xamante ni mooy sumbulu bàcc li du ma def lu dul jox leen sama micro rek ngeen sànneeku fëlaale wax lu leen saf. salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu kontaan nañ rafetlu nañ ci teewaay bi si suñu bés bi nii nga xam ne don social la ñuy def mi du Cœur pour dimbali ñi nga xamante ni tey jii ñu ngi fii si banlieue bi effectivement Médina Gounass tey dañoo ànd ak Soumboulou di dugg ci daara yi si jumaa ji ci taalibe yi ak ñi dëkk ci koñ bi yëpp offrir leen ay ndogu en plus Soumboulou daf ko def pour ñaanaaleel papam mi nga xamante ni yàlla na suuf oyof si kawam ñun su booba léegi ñu ngi fi di ànd moom parce que suñu tata bu baax la daf ñu woon lu rafet ci koñ bi loo xamante ni gisuñu benn célébrité bu ko woon waa koñam moo tax ñu jàpp ko bu baax a baax a baax te feneen fu mu ñu woo dul fii dinañ ko wuyu bés bi nag métti na trop ak koor gi xam nga avant la rupture day xaw a métti su booba léegi ñu nekk si 9h wàccee ba heure bii nii mais lim fi lim si séntu yàlla na ko yàlla defal yal na suuf woyow ci kaw baayam boobu noonu tëdd foofu noonu yal na ko yàlla xaaree ajana te tamit lii yal na koy mën ay ati ati ati ati at li mu bëgg si nag si aar beeg comédie bi yal na ko yàlla may. ay salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp waaw depuis suba ba léegi ñu ngi fi di togg ay ndagu di ko yóbbu ci daara yi di ko yóbbu ci jumaa ji di ko jox xale yi di ko jox mag yi di ko jox waa koñ bi mais lii yàgg na sumbulu yàgg na koo def du tey ñu koy gërëm nag di ko sant ndax ñun fii nii di ñu sagal ñun dañuy kontaan ah yéen tamit ñu leen di jëfal yéen ñii tamit ñëw fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñun daal kontaan nañ daal jërëjëf. merci xale bi nga xamante ne tubaar fakal la macha allah dafa xew sa jamono te yàlla bu mu xewi nag mu ngi yëngal àdduna di joxe li nga xamante ne loolu la àdduna di laaj muy sumbulu kenn du ne ko présenté dañ naan ko rek nuyul àdduna nga nuyu fan si nuyu soppe yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax di julli ci yenant bi di nuyu bu baax pël bu rafet waa Soumboulou tey ñu fekk la fii ci euh, Pikine ngay joxe ndogu euh, di ko jox ñi nga xamante ne tey dañoo dëddu ku ci mel ni sa papa ku ci mel ni ndongo daara yi ak jàkka ji ñu euh, ñu bëggoon nga wax ñu ban kii nga ciy yëg tey jii ak mbooloo bi nga dajale fii ak cant gi ak lépp. waa mbégte rek pël mbégte rek defe naa ne jox nit mu lekk moom li ci yàlla wax ñëpp xam nañ ko kon nag ma dellu see fii ma juddoo def ko fii ñëpp génn jàppale ma depuis soo ba léegi damay kontaan sant bu baax di ci am mbégte lool nag wax dëgg fa yàlla maa ngi sant yàlla daal. waa Soumboulou mun nga ñëw wax nan ngay dundee weeru koor bi Soumboulou rek maa nurul ko woor daal. wallaahi lazim damay woor yàlla xam na ko damay woor bu baax sax. <laughs> lenn rek laa mooy bi question bi nga xamante ne ñett nit ñoo ko yóbbante si yow ñu ne ma Soumboulou Bathily buy joué rek seetlu nañ ne moog Zozo ñooy nekk en couple ñu ne bi ñuy laajte yow rek yaa ko mën a joxe wala la la wala Zozo yow la taamu pour ngay nekk soxnaam à chaque fois ci série non du loolu dañoo war a ànd rek ñu ànd di joué muy professionnel may professionnel ñu koy def ni mu waree loolu la rek pour bëggal jaamu waa tey Soumboulou lan ngay wax soppe ak fans yi nga xamante ne dañ lay bégee di nuyu ñëpp di leen sant di leen ñaanal jàmm rek lépp lu nu fi am rek yàlla nañu ko bokk ak yéen lay jaajëfal bu baax alhamdulilah waa taxaw dara di taxaw ak Assane Mbaye Mbaye Basu borom Japon borom Sénégal xale bi nga xamante ne deful dara li nga xamante ne pour Sénégal jëm kanam la sama doomu day dafa lër nga def maa bëgg ba mu jeex ma bëgg ko ba mu jeex dëkk du neex Assane Mbaye maa lay nuyu waaw sama xarit maa ngi lay siyaare di la nuyu di la wax ne namoon naa la di kontaan ci yéen nag vraiment ndax liggéey bi rafet na maa ngi koy suivre ci net bi liggéey bi rafet na trop di kontaan ci yéen. waaw ñu ñëw fekk la tey ci bésu Soumboulou bi nga xamante ne moo joxe ndogu yi Assane ñu bëgg nga wax ñu sa relation ak Soumboulou lan la. waaw maanaam moom bi ñuy xamante bi ñuy bëggante mënuñoo jënd ku ne mbu kilo mburu presque 2005 laa xamante ak Soumboulou ñu sekki jàmm muy nit ku baax li ma wax sànq ci beneen télé bi rek. lii mu def nii xale bu jigéen bu toll aasam di ko def bariwut kon nit su defee lu baax te moom fi mu toll bari na ñu fa toll ëppale ko lépp te defuñu lu mel nii te sëñ Fall daf ni woon ki def dara lu baax jar na wax waaw góor ndax ki ko mënta def ko.